bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal na nu yàlla may dund gu barkeel yal nañ fekk déwén te weesu ko yal na yàlla def jàmm ci dëkk bi dëkk yu ko wër ñu ngi am mbégte lool ci woo bi ngeen ñu woo ci jataay bii ndax yéen ñu tuyaaba ngi jaajëfal mbokk yi jiitu ci waxtaan wi di jaajëfal mbokk yi xalaat waxtaan wi xëy na professeur mooy sunu gan waaye professeur ji bi moom du sunu gan noo bokk yëf yi ca réew ma niroo lu ñu wax lool ndax noonu la mbir mi demee Cheikh Moustapha ak Cheikh Ibrahim ñoom it macha allah léeg-léeg ñu toog ci jataay yu mel nii gis leen fa yal yàlla yokk barke eh, kenn ku ne fi dugg ci ñoom ñaar nag mën nga ne yaa ngi doon dugg ci fi alquran jaar di wax ñoom liñ doon wax alquran nag du du du jëfandikoo baatu léeg-léeg usra ci nuñ koy jëfandikoo waaye baatu aalu lay wax aalu ngi ci kanam moo tax bi ñaari professeurs yi nattee li nga xam ne mooy famille ku ne day gis ne bu ñu ko nattee fii ni muy tollu ak bu ñu demee Afrique natt ko ni muy tollu ak bu ñu demee sunum réew natt ko ni muy tollu yaakaar naa dana am ay wuute tuuti dana am wuute tuuti bi day ñëw yem bi ñëw yaatu bi ñëw yaatu ba léeg-léeg mu gën a yaatu bi nekk fii walla ba nekk dëkk sàngam te agul afrig fami nag walla boog aalu ci waxu alxuraan dafa am ñoo xam ne ñoo koy ŋànk kenn ki bàyyi lay tudd ci xale bi kenn ki yaay lay tudd ci xale bi xale bi ñëw tudd doom te ñoom professeur Jib Jaxate xam nañ ne benn baat bu ne ci baat yooyu am na lu ne ci ginnaawam lu muy tekki moo tax ñooñu mënuñoo ñàkk su fekkee bëgg nañ mu am ñu tuddee kenn ki baay ca suñu làkk ca sunum réew tuddee kenn ki yaay tuddee kenn ki doom baat yooyu bu ñu ko masaan wax foofa rek joué nañu wala boog jox nañ ku ci nekk taxawaay bi nga war a taxaw soo demee sunum réew bu ñu masaan di ndékki ndékki ku ñëw ci kër gi fekk ñuy ndékki rek da xam kii boroom kër gi kan mooy taawu kër gi kan mooy aawa kan mooy ñaareel ca aawoo ko ñaareel <laughs> wax naa dëgg di ndax lan ki ayewaan su fekkee dafa kafe ba noppi dafa daan taxaw ci buntu néegi ñu ayewut ne leen kaay leen ñu ndékki génn ci nag boroom kër bi te mooy jëkkër ji baayu xale yeeg jëkkëru ñi fi nekk moom mooy jël cafetière bi ñuy xellee kafe ak xeeti naanukaay yi ñu naanee bu xellee daa am ku muy njëkk a jox ci jigéen ñi am ku mu cay teg ba baa muy àggal bu ñëwee ci xale yi ci góor ñi taaw bi ni mu koy joxe bokkut ak ki ci tege ni mu koy joxe ni gone yu mag yi di naane bokkut ak ni gone ndaw yi di naane loolu nag dafa amoon ay rôle yoo xam ne mag ñi dañ koo dañ ko doon garder ndax booba lañu doon ñab ñabalakas néew dañ ko doon jële ci alxuraan ak yarub gaa yi jaar ci biir alxuraan te alxuraan nettali lu ko moo tax baay boobu ñu doon jox nag ne ko séddaleel daf daan taxaw taxawaayu baay waaw daf daan taxaw taxawaayu baay ba kër gi yëpp xam ne kii mooy baay peut-être ñun léeg-léeg ñu ne chef de famille peut-être waaye moom kër gi yëpp daan xam ne kii mooy baay lu tax ñu daan bokk ndékki mooy sunuy ndékki ku ñu gis ngay dajjant ñu xam ne nelawoo biig ñépp a ngi ci saal bi di ndékki ñu seen la yow ngay def nii boroom kër gi ne la yow foo fanaan du la ko wax nag ci biir mbooloo mi parce que coow daf lay topp te kon yar ba du baax dalay lay bàyyi ba ñëpp dem ma dama laa soxla ne la yow foo fanaan ñu ndékki ngay dajjant nelawoo biig ba tax sëñ Babacar Si daan wax ne dee leen téer tër si ndax damay teel a fatu te damay teela a léemu te ku fi léemu gi fekkwut nag garanti la ndekki kon xoolal message bu am solo bu mu daan def añ daana ko def reer daana ko def waaw ñii ñooy nettali euh, l'enfant noir mu ngoog bu kamara laay déggu may tubaab nag tel leen ko wax léegi kooku nga xam ne moo doon bàyyi taxawaay yëpp la daan taxaw moo tax taxawaay yooyu dañ ko daan tere moom bàyyi doom yi xamal ko lépp ndax koo xam ni léppam commencé koo xeeb moo tax bàyyi dañ koy fekk si ci néegam fa la ñuy ndékkee kenn du wax te bu ko defee ñëpp yëg ne am na ko fi nekkoon moom rek moo fi nekk waaye noonu bàyyi daan def nag ci rolam noonu la yaay daan def moom tam maa ngi koy wax léeg-léeg ñi fi jóge Saalum ñi jóge fii Saalum yow de maa la ko wax kon li ma bëgg xam nga ko ak ñi nga xam ni ñoo jóge fële ca waalo xam nañ picc mi yox toq toq ñaari picc lañ bu góor ak bu jigéen waaye rôle bi toq bu góor di def ak rôle bi toq bu jigéen di def defar na fa mi moo tax borom bi ne wala taa'ir yatiiru bi janaaxayhi illa umamun amthaalukum maa faratnaa fil kitaab min shay mu ne picc yiy naaw picc yiy naaw ak yi dox ci suuf yépp lu ci nekk ay famille lañu yoo xam ne ñi ko xam-xam nañu ko mu ne toq bu ñu tollee ci wut fu ñu dëkk wara a fonder foyer jur nàmpal boot feral toq gu jigéen gi mooy wuti fu ñu dëkk mooy dem ci garab yi ba gis fa garab gu wóor mu xool ci kaw gis ne amul bën-bën mu xool xob yi car yi ko jege amut mu yëg na kon fii danger amu fi xam nga fi ne soo seetloo jigéen ñi tey ku fi gisoon benn genn kër ne la fii baax na boo ci duggee yéen naar du ngeen dox ba rëcc ko ndax ñoom xam nañu ruq-ruq yi ñu ci soxlaak ñamatoos yeeg ingrédients yeeg ñoom seen yooyu ñoom daañ ko ci xam toq bu gisee fu mu war a dëkk day daal woo bu góor bi ne ko gis naa génn kër de foo ko gis mu ne maa ngi ko gis barab sàngam daal di koy tuddal fa mu gis acca ñu dem bu jigéen bi jiitu di naaw bu góor bi topp ba ñu àgg dal ci garab gi mu ne ko fii laa gis bu góor bi dugg ndeysaan xool ba génn ne ko amoore fii baax na <laughs> ne ko amoore fii baax na ñu ñu ànd ñoom ñaar bu jigéen bi nen fa ñaari nen ne ko nag yaay boof nag parce que mbirum mbir mi mbirum parité la xaw ma émancipation xam ñu ko ci waaye daal yaay boof ndax nag maa neen mbokk yi gis nga xis ba boo koy topp ba ni ñuy naawtal seen doom yi loolu noonu la fami mel kii daa am rôle bu koy xaar kee am rôle bu koy xaar ku ci faussé sa bos rek daal di yàq fa kii ci boppam moo tax bu bàyyi amee di dox rôlam yaay am di dox rôlam bu doom ñëwee bu doom ñëwee fekk baay ak yaay ci fi ñu nekk foofu rek lay mën a nekk professeur ju ñu ne ko léegi jigéen ji ëmb ba wasin te jëkkëram mustakaf ak moom doom ji mu indi rek jëkkër ma ko def jigéen ëmb ba wasin sa jëkkër musta kaf ak yow wàcc nga mu ne waaw <laughs> rekk bëggoon nañ waxtaan mu ne ci nga dëkk damay teel a xëy déedéet sëñ Cheikh Ahmad si daana wax ne dangay toog ba mu yàgg nga jël sa loxo teg ci biir bi ne ko lu bébé wax tey sëñ Cheikh Ahmad Tidiane si waaye kooku nga xam ne yéena si ànd yéen ñaar bay séentu bébé mu war a yor bébé ci biiram juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti weer yooyu war naa yëg moom ne famille baa ngi bëgg am gan waaw famille bi mi ngi bëgg am gan nuñ koy gasandoo te man gis naa ci bu daw yaram ndeysaan ca réew sàngam ku jigéen ki dafa yëg ne woon na nalor mu ne jëkkër ji damaa am xibaar bu neex mu la bëgg a wax ban xibaar mu ne ah xanaa nga jox ma vingt cinq mille ñu lijjanti ba jëkkër ji jox ko vingt cinq mille mu lem ba mu jekk def ci posetam yëgal ko nag xibaar bi ne ko dama ëmb sëñ Moustapha jëkkër ja yuuxu ko ne ko lu tax ngay ëmb keroog hôpital sàngam ca dëkk sàngam fa la fanaan loolu mu ëmboon deñ bëggewuñ ko noonu bëggewuñ ko noonu famille buñ koy tabax noonu ñaari picc yi def lañu bëgg jëkkër ak jabar def ko mu tax buñ ca tollee ñu bëgg tànn ndax li ñuy def jigéen ñëpp ay jigéen lañ waaye mën naa am ñëpp mënuñu ko góor ñépp it ay góor lañ waaye mën naa am góor ñëpp mënuñu ko waaw ndax sama góor gi boo ma saan ñëw ne ko damaa bëgg ci sa doom yi jabar mu ne la tigi poosam génn ca tàngal boobu tudd tàngal bégee <laughs> daal lay jox seex benn nga seex benn mu continue nag di waxtaan bu déggee nga yëy tàngal bi rek doo am jabar amoo patience góor ga boo yëy tàngal bi rek mu lay dàq lu tax parce que tàngal benn duñ wax lekk tàngal wolof du ko wax macc tàngal lay wax am déet ginnaaw dañuy màcc tàngal nag màccal ba mu jeex rek waaye màcc ba mu xaaj rek nga ne ko kuuj mu la demal ñibbi waaw demal ñibbi kon kooku ndeke dañ koy tànn ku ku patient nu ñu ko waxee ku ku ku ku ku mën a teewlu ku mën a dëndiirlu gis nga góor guy def lu xew këram mu yuuxu lu xew këram mu ne dum amati mooy mooy day gérer détail famille nag bu ñuy gérer détail bu ci gonee màggee rek bëgg détail gis nga boo ñëwee ci kër gi léeg-léeg gis góor guy kaas ci fi nga teg bale gi waroo ko fee teg nang ko yedd lu yoonam ci bale hmm? waaw sànq yaa ngi koy junj ci fi doom di tollu di roy baayam ak fi doom di tollu di roy yaayam dañ leen di faa de da am doom daf lay faa gis nga nag foofu mu toll ba faa la fi soo ko fi téyee soo ko fi téyee dootul faa nit amal chance rek sa doom ji jigéen toll ci at yooyu nga doon tudd léegi ba ba bëgg la génn bëgg gi boo ko exploité lootul fan kenn jigéen tam noonu la waaye soo ci bàyyiwul xel da lay ñuux ñuuxaat da nga ne ko soof nga waayu mu daal tàmbalee des ginnaaw moom tam xam ne du foofu léegi nag bu kenn ñëwee ku ko dul wax soof nga mun na ko yow soofoo mbokk yi yaay day taxaw taxawaayam bàyyi taxaw taxawaayam su ko defee ñoom ñaar ñëpp li ñuy def mooy am jeexantal yi Cheikh Moustapha sunu borom daf ñu li ñeenti nit ñu mën fami ci alxuraanul karim kenn ki aadama la tudd mooy sunu baay nun ñëpp waaye fameem bi mu tabaxee ba noppi doom yi am na ko ko ci déggalut barey moroom ja ci kaw jigéen sàngam duma ko takk am na keneen ku ñu wax nuuxun at yu gudd la am waaye moom it famille bi mu doon tabax jabaram def na ko du noonu doomam ne ko du noonu waaye teewul sunu borom dañu nekk la nag mu am ku ñuy wax Ibrahim sunu borom ne fexe leen ne copier fameem seen bos mel nii ba demee ci ñoom Oustaz Sarr. inna laa safa aadama moom képp wa nuuxan moom képp am déet daal nag wa aala ibrahim wa aala ibrahim famille ibrahim ibrahim yàlla ne ko yow baax nga ndax ni nga mel bëgg naa ko waaye ibrahim dafa fondé famille boo xam ne yi nga xam ne day dugg si te man koo yàq xam na ko yi dugg si man koo soppi xam na ko maanaam defe naa xam ngeen ganaar bu dee ndaw ko ndaane ñoom ci bool bi rek lañ ko xam waaye ganaar professeur bu mag la wax la ko tey ganaar day jàngale ganaar toog mu ñàgg rek bu bu bu picc ne ci kaw yuuxu ne xaag rek ganaar ni nii laaf ya doom yi daw leen dugg gaaw ñu dugg mu ne képp ba ñëpp dem mu fireeku mën ngeen a doxi seen i yitte ci doomi ne ko waaw yaay <laughs> lu tax nga ragal céeli mu ne ko def maa nappoon ba may xale ba may toll ni yow la ma tiitaloon waaye Ibrahima defaru ba pare ci seen soxna soxna saa ngi tudd saarata saarata am nañ at yu yàgg amuñu doom soxna si daal mel ni soxna yenn yi na ko najaay tee ngaa ñaareel xam nga léeg-léeg jigéen wax ko ba noppi gi bëgg caa génnaat <laughs> najaay tee nga ñaareel mu ne ko looy wax ni mu ne ko waaw yow missionnaire nga te man dem naa ci docteur yépp jàpp naa ne duma am doom te boo fi bu ma fi jógee nga jóge fi li ngay woote fi lay yem kon nag ñaareelal <laughs> waaw Ibrahima ne soxna si ah sama xelañ ci woon de waaye ñi mu ma ko yëkkati mu ne ko maa la ci jox ndigal waa léegi damay dem saam takki mu ne ko jëru ko mbindaan mi ci kër gi kenn gënu ko <laughs> ah <laughs> xam nga Ibrahima boo demee sunum réew mbindaan mi ci kër gi liggéeyu kër lay liggéeyee bu weer dee ñu fay ko lépp luy liggéeyu kër nag mbindaan bi da koy man te am na ci liggéeyu kër yi mbindaan yi liggéey yoo xam ne day toj xolu jigéen Haajara ne saaratu ne ko takkal kooku Ibrahima ne ko fas yàlla comme ñun du ñu niti aada <laughs> xam nga nituk aada moom boo amee mbindaan ba yàgg nga takk ko sa kër tas ci aada mu takk ko doxalaguñ ñeenti weer xale bu jigéen ba ëmb la saarata waxoon nag am na waaye nag jigéen ju jëkkër ja ñaareelal na ca tey de wax la ko tey <laughs> moom daal daa gis xale bi di jafte rek mu tàmbali ne ko yow looy taf li xanaa bala ngaa ëmb agsi ci kër gi ngay pacc pacc nii problème tàmbali am waaye li tax xissa bi mooy Ibrahima bëggul famille bi tas bëggul xeex am bëggul jàppal bayil ñol-ñoli am ñaareel baa ngi nii ëmb na ñuy négocier ñoom ñaar jàppal bayil ba ni musin waaye sunu borom Cheikh Ibrahim ginnaaw xakim la mu teg aawa bi wànnent ñaareel bi nekk wasin te benn néeg lañ am bu taalee làmp bi ki wànnent na ko fayal mu fay ki wasin na ko taalal luy xew toxal kenn ki rek waaye foofu suñu borom da ko wanne ko baax nga sa aawa baax na sa ñaareel baax na mu am ca doom ju tudd Ismaayil Ismaayil ñëw ci rythme bi kër gi di doxe mu ne ko sa taawit baax na mu am doom ca aawa ba tudde ko Isxaaq mu ne ko jooju doom baax na maanaam mboolem famille bi ñëpp baax nañu lu tax chef de famille bi dafa mat chef de famille wuuf aawo uuf ñaareel uuf taaw uuf ñaareel ba ñaareel doom jooju fi nekk nii mooy papay Israël yi mooy seen maam moo tax adduna ñoo fi gën a dëgëru fit ndax seen bàyyi ñoo fi ëpp xam-xam ndax seen bàyyi gën fee ñeme ma wax la ko tey ala xaal boobu la beneen famille bi muy famille imran wa ala imran imran genn góor la woon moom tam goo xam ne gi maam la ci yaxya zakariya isa muusa ak mariama ci boppam la sunu borom ëndee tànn naa famille Imran yépp def ko mbokk yi gis nga famille yooyu sunu borom daa bëgg nu jàng leen copier leen ba ñol-ñol ji am ci famille bu ca amee rek te ma nga ca doon am ñu mën koo régler nañ ko régler woon ñoom mu ngoog famille mooy kon ku góor kii ku jigéen kii àdduna nag li ci gën a jafe mooy jël famille yóbbu fu mu fu mu doon gan walla jële ko fu mu doon gan yóbbu ko fu mu dëkkoon problème am na ni ko professeur Djibi waxe léegi yàlla na ko yàlla yokk wér gis nga sooy jóge fenn di dem fenn ñu koy wax immigré ci yéen yal na yàlla jàppale leen ba def ci barke mooy jóge cim réew dem cim réew bi ngay dem danga yóbbaale jën jëmm mu yow léeg-léeg nga ngay ñëw ànd ak moom ànd ak nogay walla nga toog ba mu yàgg nogay fekk si la gone goo mën a am boo feesee bëtam rekk yu baree bari mën na koo bañ a te du yàq fi nga dëkk dara doo yàq say dëkkandoo dara is nga barke dem bi ñuy màggal Daarul Muxti mbàkk la def maa woo ne ma luy sa luy sa leçon ren ndax at mu jot yàlla def ma baaxee damay dem ca màggal ga di fa jël kàddu mu ne ma luy sa luy sa temu boo ñëwoon ma ne ko mooy ku ñuy dénk ak ki ñuy dénk ak li ñuy dénkaane ma ne ko dafa am sëriñ bu bëggoon a tukki ñu ko wax sëriñ Touba mu am lum yor war am kum ko dénk mu tànn kenn dëkkoon daarul moxti mu dénk ko ko lim ko dénkoon nag ki ko dénkoon day ñëw ne ko ana la ma dénkoon mooy bis bi lii loolu mooy tey jigéen day liggéey fii ba am fi peut-être deux cent euros walla moo xam trois cent daal di koy dénk mataar mi jëkkër ji toog ba benn bis mu soxla ab kastiloor wala ab karaaf ne ko amoore sama trois mu ne ko xam gis nga ndénkaan ci ci ci xissa bi ma doon wax wax léegi mooy yow miñ dénk nangul ki la dénkoon laaj la lim la dénk ma ne ko loolu mooy sama sama sama temu su fekkoon ñëw naa ca jataay ba waaye àdduna bi muy dox daa am ñoñ bu ñu sañoon famille bu amee du amee ni ame amee léeg-léeg da koy def ci ñàkk xam léeg-léeg tayeef lay doon famille tey soo indee fii sa sa jong ma soo indee fii sa jong ma te suñ réew ma di santaas ay nit bu fi amee at ñu ne ko ah da nga dul yóbbu Matar mu ne Matar man ñu ne ko ah xam nga Matar kay te du ci kër gi ne waxtu rek deful dara te yow yaa ngi ci réewee kay yóbbu ko léegi yow mi nekk fii ku dem tàmbaleegoo liggéey wala booy liggéey it bu weer dee xee la nga cay amee fajul say soxla léegi nag sa bokk yëpp naa la yóbbul ma taar yóbbul ma taar yóbbul ma taar war nga am a yóbbu ma taar ndax sa morom yaa ngi yóbbu ma seeni ma taar ba benn bi sa jëkkër ji daan wàcce nga naan ko amoo amoore noo yendoo mu ñëw ne la asalaamaaleykum nga ne këj lu tax parce que da ngaa bëgg waxtaan ak moom ci nooy indee ma taar ñol ñol daal di tàmbali sant nañ la loo mënut te mënoo koo gàntu ndax aaday réew ma sant nañ la loo mënut te mënoo koo gantu ndax aaday réew ma léegi nag jàppal bàyyil mataar dana ñëw mataar du ñëw nanga ma danga bu ci loolu nekkee ah déedéet loolu léeg-léeg nit ñi def ko santaas la nga dugg ca te mënoo ko mu yàq li nga doon def mu yàq li nga doon def te lu war a jege war a ànd rek buñ sorontee mu yàqu juñ nga ko léegi xam nga bu nuy jàngal nu nuy wax ak jigéen lay wax ne jigéen yàlla daf koo mooñ ci ñeent ku bëgg a wax ak moom na nga ko xam tabiatul marati dañ naan la jigéen daa bari wax ku munta dékku seeni wax bu yàgg dem toog am déet moo tax sunu borom ne waxul na wax leen ba mu neex leen ñu tàmbali wax na ah, xawal xawalan maarufan na nekk na wax na nekk wax ju yiw nag waaye daal tere leen wax moom moo tax dama am sama jenn doom bi muy toll ci ngone see day laaj rek day laaj rek yaay jaa ngi sonn ci laaj yi te moom laaj ñu ko ñuy seetaan film moom yàgg rek mu ne ma waaw film bi kan mooy jeune bi ma ne ko kii sol euh, nangam ji mu ne waaw moom dana dee ci film bi mën na ko déedéet mu ne ah lu tax muy rey nit moom du dee mën na ko bu dee film bi day yàqu mu ne ma xanaa kon moo tax yàlla du dee gis nga fi mu ma yóbbu ci question su ma dul ton du tontu du du ñëw ba foofu léegi nag man maay mooñ nu ma koy tontoo ci question bu mujj boobu kon jigéen dañ koy bind ci bari wax nangul nag muy wax rek wax ji moom fexeel bi nangu ko rek saabu daa bëgg ñu waxtaan rek neel acc lu mu guddi guddi dama laa soxla acca waaw man de du ma bañ damay dama yeewu man kay du ma bañ damay yeewu ñu laay ca parce que ginnaaw yàllaa ko ko mooñe fekk ko ci neel benn bu ñaaral ba yàlla daa mooñ ci jigéen fàtte fàtte ndax su fekkoon jigéen du fàtte ku am doom duutoo jël ay métit wi na ci am doom bu fekkoon jigéen du fàtte ku am doom duutoo jël ay doy na sëkk waaye fi ne balaa nàmpal ñeenti weer jàpp juróom rek fàtte ba ci doon ci am doom bëgg jëlaatug ay loolu yàllaa ko ci mooñ moo tax soo bu Cheikh Ibrahima wàccee daal ne waaw nangam ñu waroon defar lu nga ne mu na way dama koo fàtte rek nga yuuxu déedéet da nga yëg nde yàllaa ko mooñ a fàtte parce que fàtte gi ci moom lu naturel la nangu ko ñaar ñetteel ba yaa fi man jigéen ñëpp bëgg yaa fi man gis nga niñ toogee nii su ma leen lalal naa leen <laughs> dégg nga waaw am na jëkkër yoo xam ne duñ wax lalal naa la mukk mukk mukk ah, waaw loolu yàllaa leen ko mooñe mënuñ ci dara moo tax koo ko ci wax rek koo ko ci wax rek bés boobu dencal na la mbégte moo xam ne mënu la ko nettali loolu mooy yaafi man ci ci lalal naa la jiit ci yaa man ji bu toggee ba noppi nga nga jël ñaari kudd rek teg fa ne ko li nga togg neex na bu subaa bu la toggalee rek sa yaram daw waaye jël kudd di peel di peel bu mu ne waaw dafa neexut loolu ëpp nay def da ngay ñoos ñaari kudd kay na ko waaye noo tudd mu ne xanaa ndeela a nga ne ko yow tuddoon njëla de noo tudd nga ne ko ndaw soo sa nekkoon ndar te daan togg ceebu jën ya num tudd mooy la penda nu sant mu ne mbay mu ne ko nag moom moo sant mbay daal di ko jox aw santam moom gis nga kër googu ah mbégte mi dugg gone yi dañuy dund ak seen papa mbégte mi di ko dund ak seen yaay waaye saa bu façon amee rek parce que xale du bind du note ngeen baal ma moo ci sunum réew ñu ñu tuddee géwal ñooyam du ñu not jël not waaye ba ñu taxaw fi waxal la lépp xale nun la mel day rek ak di denc moo tax su su suñ kër gi harmo harmonisé woo bu kër gi amee juboo am àndandoo di wax ñoom seen yooyu xale yi dañuy dund loolu di ànd ak moom la ci tege mooy àdduna yi dem ba indi nag ku amati benn doom jàpp ñaar nafayam loolu ñun suñ famille fële xamu ko dangay am juróom-ñetti doom jàpp juróom-ñeent gis nga jigéen goo gis muy tumuranke Ibrahima màggat di tumuranke daa am benn doom képp mbaa ñaar waaye soo weesoo soo ñaar jàpp ñett soo màggatee ci ñoom ñett ñooñu am na ci ku la gën am ci ku mel ni yow ah am ko la yàlla nattoo mënoo ci dara boo amee juróom-ñett nag moom waxi noppi am na ci koo xam ne ki moo la yóbbu màkk am na koo xam ne ki du réeroog yow am na koo xam ne kii moo lay remplacer sax ci papaam papam da koy wóolu ba ko jox muy denc yàlla xam na ko mbokk yi kon ci lislaam fa mu déparé famille mooy kero ba aadama ak xawa wàccee ci kaw suuf fa la départ ak ñu commencé ñoom ñaar di tabax seen kër dund fa aw dundin am ca ay doom maye leen ñu sëy yëfe départ bi mu départee ñëw ba agsi ci mu limal ñu ay yonent bëgg ñu coppee ci ñoom ndax suñu foyer sunu sunu kër mel noonu suñu ko defee samp li ñuy samp muy famille fu ñu ko mënta samp rek na mel lay mel nam dëgëre lay dëgëre waaye ni ñu ko alxuraan jàngale nag suñ ko doxee la noonu ak fu nu mën a nekk ci àdduna si rek noonu rek lay mel léegi nag soo ko defut bi bi muy seey ci fi nga nekk mbaa mu ñëw seey ca fa nga nekk doo ko yëg ndax lan mooy fi nga taxaw moo xaw a wuuteeg fi nga war a taxaw tuuti waaye boo taxaw fi nga war a taxaw tuuti ah, ba mat sëkk kon ku jigéen ki taxaw ba mat sëkk su boobaa lépp lu ngeen am ci jafeñ-jafeñ bu ngeen taxawee jafeñ-jafeñ ba day neex a réglé yaa ngi junju sànq ñaar ñuy sëy am jafeñ-jafeñ gis nga bu ñu amul fu ñu dellu laaj ko gone ya naan appartement la ñuy dëkke ca réew ma man duma ma dëkk ak euh, sa yaay ndax nangam ak nangam dem jëli apartement doo fa am at doo fa am at moo tax ñaar ñu tanentewul te beru ñoom ñaar képp nañ wut kilifa goog bu nu jaaxlee dem ca moom lu ko mooy ñoom ñaar bu ñu beeroo ñoom ñaar képp léegi te ñu def hors jugé xam nga li hors jugé Ibrahima mooy ñaar ñuy sëy ba mu yàgg ñoom ñaar képp ci kër gi doom amagul ku jigéen ki ne ku jëkk ku góor ki man de ku ni moon maa takk ma weddi ko ku ni moon yaa may takk ma weddi ko lu xew mu ne maag bàcc génn nañ juróomi at xanaa loolu hors la léegi nag fu téléphone bi soneetee rek nga defe ne bàcce woote te moo ko fi indi léeg-léeg ku góor ki bëgg lu ko naqari na ko ah, man mii de daanaka ñoo yem ndax Eva de génn nañ juróom-benn at léegi al amaana bi nekkoon ci sëy bi muy confiance mi ngi tàmbalee yàqu ku ko yàq. kii ko yàq lu tax yàq ko wéetaay wuñ amul ku leen wéttali waaw wéetaay baaxul ci couple buy door a ànd baaxul de sunum réew gis nga ndaw si day sëy si ci kër gi fekk fi yaay jëkkëram fekk fi papaay jëkkëram du dëgg di xool ni ñuy doxale ngeen baal ma léeg-léeg ma def ci jotaay ba toll ci tomb boobu ma ne leen kan ci yéen moo xam pël bu fay pël buy fay pël bu ne kër jëkkër mu yàgg mu mer ñibbi kër yaayam doo gis mukk la Mauritanie wala Sénégal kon su fekkee ne wéetaay woowu lañ ci bëgg niñ wut kilifa gog bu nu jaaxlee dem ci moom su ko defee bu ñëwee mu déglu leen bu leen mënta déglu ñun toog ñoom ñaar mu déglu kii déglu kii woo leen taaj leen ndax téesante léeg-léeg bu nit daaj taajee ñaar te xamul nu muy demee téesante moo fay mujj waaye boo xamee ni muy demee da ngay da déglu ko jigéen ki déglu ko góor ki ku jigéen ki nag ku ku ku amul patient doo ko mën a déglu jigéen ju mere ci sëyam daf lay nekk ci li kër ba mu fereem soow. bañ ko yotee bàjjanam mu jóge ca bàjjanam dal jàng ba mu demee cël ma xam mbaakol ba mu lu la koy toppal su ko defee yow bisu boo ko coupé rek mer la yóbbaale <laughs> danay wax ni booy booy booy jubalay jigéen li fekk jooy amut bul bàyyi del wax rek bis bu kenn defee nii nag nga xam ne mi ngi wàcc waaw sama papa daa amoon benn benn apprenti comme sama papa chauffeur la woon te camion la doon dawal dafa am benn apprenti am ndeysaan bu ñëwee ci kër gi bu ñu ko waxee lu ko naqari mu ne sama yaay astu mu naa mu ne ko maa ngi génne dangar maa ngi jooykat lay wax dama maa ngi génne dangar dugg ci néeg bi jooy ba ñëpp yërëm ko mu daal di génn sol mu ne ko danar bi jeex na mu néew bi de métti na waaye jigéen bu mu tàmm teel a beru moom dong te amul kilifa goog buñ jaaxlee dem ca sëñ jéeri waa daan mii jàng na ba ñuy mayee ca jàkka ja laay dañ doon jàng itaqu rabbakum moo tax saa boo dellu see buñ la ko buñ la ko nettaliwaatee rek mën ngaa dellu siwaat te dellu ngay dellu si day tax nga dogaat yoon bi ma jeexal ci bi ngay junj sànq ci téléphone téléphone daa fekk nu nu jege mu sore la te def na war na fekk ñu sore mu jege la am na sëy yoo xam ne fi ne téléphone ci liggéey ci lu ko yàq wax la ko ndax léeg-léeg mu sone heure boo xam ne waru caa sone boo ko bàyyee mu sone ca te ki nga nekkal amaana bi am ci moom te mooy confiance seytaane nga ciy liggéey léegi tey téléphone am lum yàq foofu moo tax fa bokk ci yiy màbbu famille loolu ci la bokk junj naa ci léegi famille boo xam ne bëgguñu bëgguñu juróomi doom àddunaa ngi doxal ba dem sax ca xaw ma yi réew yi nag réew yoo xam ne dañuy wax ne jigéen sañ naa sax ñu dindil ko ko parce que defee famille du am famille liñ bëggoon mooy ku góor am ku jigéen am ñu am ay doom euh, yar leen jàngal leen teg leen ci yoon bu ëllëgee keneen ñëw nga may ko ki nga yar bu say doom jógee ñu may leen kuñ yar defe naa léeg-léeg ngeen seetaan documentaire u ñay ñay bu doom ja màggee daf koy dàq mu dem wuti keneen bu ñay wu góor wu ndaw jógee fële ñëw këram mu héberger ko ndax mu takk ci waa këram ñay noonu lay def mbokk yi yal na nu yàlla xër ci tabax foyer ni nu ko sunu a jàngale professeur bi muy wax su ngeen dee déglu li mu doon waxe ki jafeñ-jafeñ ak xalaat yi dugg ci nit dangay xam ne xalaat yi mu doon wax yépp ndek alxuraan tënkoon na ko professeur Jibi Jaxate moom waxe noppi bi mu koy wax moom it da nga yëg ni noonu ñuy fondee sunu famille noonu la ko alxuraan jàngale kon yëf yi sotti ci ak def ci la du dëgg sunu doxalee fii ci Italie grand contre petit ñooy man petit yi grand contre petit mag ñëpp contre gone yëpp waxuma contre nag ci dóor ak a ngàdd ak def yëf déedéet benn match moo am suñu digganteeg ñoom comme nooy grand yi nag bu defee contre petit rek man leen mooy lan rabbaloo jàppandoo wutal leen fuñ leen di man di dajale wutal leen fuñ mën di déggee wutal leen fuñ leen man di orienté ndax gonekat dégg nga li ko wolof waxe ku ne bu ne gone mooy ku ne su ko defee danañu màgg incha allah màggin woo xam ne fi nga nekkoon lañ lay teg nga teg leen fi ñu nekk réeru du am réeru am bu ko defee lépp fu mu dem nag ci centre di fa jàngi luñ ko fa wax bum ñëw netti la ko nga ne ko dimbale ma de déedéet da fexe ba loolu mu fi wax même su fekkee defoo ko nga fexe ba bu du du am ñaari waaye yéen sama professeur bi nee na ndox kenn du ko naan rek te teggiwoo pot ba te sama yaay moom nun lay naane gis nga dañoo mas a laaj Lamine Diack yal yàlla yërëm waaye yéen lu tax ngeen di sport ba noppi yaru di jàng école ba noppi yaru mu nekk ko doon laaj laaj ba ca ca ca ca ca émission ba ñun bi ñuy mu ne ñun bi ñuy jàng li kër gi doon bañ moom la mbedd mi doon bañ li kër gi ak mbedd mi doon bañ moom la école doon bañ li kër gi mbedd mi école doon bañ moom la terrain doon bañ mu ne kon foofi dem rek danga fay fekk ndigal yeeg tere yi benn la su ko defee doo mën a génn gaam boobu waaye xale bi su fekkee ne bu ñëwee fii dégg fi dara mu dem fee dégg fa safaan ba dana am am problème mu waaw man sama yaay moo xamut wala professeur bi moo xamut mais comme yaay moo ko gën a jege du wax sama yaay moo xamut wax professeur bi moo xamul dara te su xasee jàpp ne professeur xamul dara du sa dugal ci bopp bi dara yal na yàlla boole dimbale yàlla ñu fekk déwén te weesu ko yàlla yàlla def jàmm ci dëkk bi dëkk yu ko wër yal yàlla sàmm nu aar nu aar leen aar ñëpp defal leen tawfiix